imaam ak ulama yi fu ñu nekk mhm. ñoom it dajaloo woon nañ dem seeti kilifa yi diine yi dem seeti Macky Sall palais ñëw seet si waa kër Ousmane ñoom xamu ana ñu sax xam nga imaam yi ndeysaan seen kilifa imaam yeeg ulama yi imaam yi yàlla seen yàlla yàlla yërëm seen kilifa ñoom bañ ko defee hmm. jëriñu doon dara ndax def nañ ko si la juddoo di wala maa ngi ñëw xam nga dañ ko def hmm. daje fii dakaar woo woo média bi hmm. to affaire bi wéy di tàkk ñu wootuwaat beneen woote boo xam ne kilifa yi diine dañu ne kenn ku ne yebal nga fa sa ndaw affaire ba wéy di Hmm. xam nga la hmm. ñu door a nag def seeni pexe sëñ mën daxaa jóg ñëw lijjanti ko hmm. cest dire mooy moom Macky Sall tellement nii ma doon wax ak yow mbir ko bu bëggoon mu saafaraw bala ñoo génn fii ñu toog maa waxtaani mu saafaraw mu saafaraw mooy na dellu ci moom institution yi rek respecté leen dañ institution respecté leen mooy jëmmi docteur ba ak capitaine ba ak ka nga xam ne moom moo yoroon enquête ba ak seen ak seen euh, seen enquête interne boobu seen biir gendarmerie bu defee lañ wax rek mu jeex bu defee lañ wax rek kaw comme que mbir mi egsi na fii est-ce que moom it bu bu deltoo ginnaaw nii ni du doon defet bu rëy maam kii kat jéemal na ko ba sonn comme jéemal na Khalifa mu am ndam mm. jéem a Karim am ndam jéemal ñi fi jéemal ñëpp am ndam mm. léegi ñëw si Ousmane Sonko jéemal ko lu mat at mun mm. munta am si moom lu toll na tarafatal ay ni mu bàyyi ko est-ce boobaa du doon defet boo xamante ni da koy topp def li nga war a def mu doon ci yow defet man koo gis Hmm? xam nekk ni moom xam nga luy defar nekk ni kay moom bis buñ nee affaire yi noo lie hmm. wala affaire yi bàyyi nañ hmm. wala teg nañ ko léegi nag ñun ni ñu xalaatee moo normal xam nga lu tax jëmmi nit ki jël mbir yi teg ko ci yoon non bu ko teeloon a teg si yoon ñu d'accord mais fi nit ñi boo demee ba mbësës mënatoo si dara nga dox ko teg si yoon su boobaa dañu xam ne ñàkk pexe tax nga teg ko si yoon même boo ko tegee ci ñàkk pexe ci yoon waaye loolee noona la nga cay gañe mooy tane la nga dul la ngay gàñee ci boo demee ba boo demee ba maanaam nit ñi génn la ci mbir yi cest à mooy mbir nii rekk la demee mooy ñoom gis nañ boo leen preuve hmm. yu tax ñu mën a bàyyi mbir yi wuñ ko hmm. léegi ñu bàyyil ko seen bopp moo gën ñu bàyyiloo leen ko hmm. c'est-à-dire bu ñu ko bàyyiloo bu doonee gàcceeg perte combat tam xaw naa sedd tane la waaye nag boo demee bañ jàpp ci seen loxo bàyyiloo la ko neex na xari loolu musiba la loolu mooy maanaam ñu bàyyi fii ne dañuy tëj sonko man unitaires yi wàcc wala kon police ak gendarme wàcc wóor na ne ñii ñu jàkkaar loolu da xeex ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mhm. ñu dem ba benn cas bi daal di dominer cas bu mu ci a doon bu dominer du doon jàmmi Sénégal mhm. ndax takk der yi saa suñ dominer rey nañ lu dul jeex mhm. maanaam population bi saa suñ dominer itam perte nañ perte nañ état te yaar yi bu ci baax nañ ma ko wax perte nit ñu doon dund faatu ci lu tegul fenn wala état boo xam ne c'est le minimum damay wax ne du état boo xam ne mooy yi ñu soxla dëgg-dëgg waaye ci misaal bàyyi san man ngaa fanaan sa kër man ngaa dañ man ngaa liggéey man ngaa dañ ci banque te kenn du ko toj hmm. kon dèjà am nañ as lëf su suñ koy aare loolu itam bu ñu demee ba France li su ko mu yàqu hmm. ma yaakaar loolu dañoo war a fexe lu ko yokk la la ca la ca nekk te baaxul ñu dindi ko dugal fa la fa baax la fa jot a baax ñu ba ko fa hmm. bu ñu jëlee lépp màbb nu muy demee loolu mooy ma bu ñu jaakaarloo ñoom et maam nguur gi ak gone mhm. ba lii am am ku ci mën a gaañ rek du combat bu baax. si ñoom daa mel ne 4 avril bi ñuy waa ñuy waajal pare woon nañ pour place de l'Obélisque ñu duy ko won leen matériel bi ñu am pour mën a xeex buñ tee Ousmane Sonko. Mhm. waaye Ousmane Sonko neen leen affaire bi du fii 14 raisons yëpp la. Ah, waaw xam nga bu ngeen kiiyee feet 14 matériel yooyu ñu indi noonu hmm. ma ma xamal nit ñi dara. amul benn état ci àdduna boo xam ne ngaa nekk ci sam réew du loxo lu la neex. Mm. état Sénégal dañoo signé ay convention internationale yoo xam ne ay armes non conventionnelles sax dañ lay tere yii bu ko laal bu ko jëfandikoo. Ukraine ñaata yoon la tàmbalee guerre ak Russie eh, mm. lu côté taal c'est-à-dire moom am ay armes yoo xam ne non conventionnelles lañ ko ci guerre. Mm. waaw loolu nag li muy am am. amaana leneen lu gën a xóot loolu mooy dafa am yeneen matériel répression yoo xam ne kenn amul droit riposter ci ak ak ak ak ay civil yoo xam ne rawat na civil si civil sëkk nañ sa dëkk nañ man nag maa ngi door a gis nag état bu wut ay gànnaay ngir xaag waa dëkkam man li ma jàngoon wa min ribatil xëyri wallahi lancé maa ngi ko a gis ay gànnaay hmm. da daan daan défendre ay hmm. wa min ribatil xëyri turhibuuna bi hadu wallahi wa aduwakum wut ay matériel ngir res ngir ngir téye say say frontière ngir ragalloo say noonu man loolu laa xamoon hmm. waaye état nga ci ay carte nga dem mënunoo am seen i ngay faral seen élection mënatu la ne. Hmm. nga ne leen kon nag xaar. Hmm. ay waaye léeg-léeg nekk si benn groupe nga gis ñu jékki-jékki dugal benn ah, oto bu ngand ab benn kii ñu waaj naan waa lii lay dara na jaar suñ kaw rey ñu bu ko mënee. nga oto yooyu noonu bu ñu jëloon takk der bu ne. Hmm. ñu armé la jox la oto bu doon yow donc nga yor ko. yaa ngi dégg. ma la ñu yokk la ñu nekk un million de personnes. am na détermination boo xam ne bu ko population bi amee mënuñ leen a na ñu leen gis nga Égypte ni première paysan arme arme Afrique est fan Afrique gépp Égypte moo fépp doole armée. Égypte gii Égypte Afrique gépp dugal ci sax Afrique sud. ñëpp ba population bu génnee lan lañ ca man ñoom. Hmm. dara lañ ci mënut. kon population mooy affaire bi moo tax. population Sonko naan te dénk leen ci boppam. très bien te xam nga benn affaire am gis nga gis nga euh, état bii nii xam nga doon nañ jàpp Sonko mënuñ mënuñu ko jàpp. Hmm. dañuy defoon état bi tële état bi tëliwul de. Hmm. état nit ku mënta jàpp ci biirum réew amut. ndax ndax état ku am moom amul bi

kon daal Sénégal léegi dañuy bëgg a taxaw seen mbokki Sénégal yi daal. c'est-à-dire mooy jëmmi Sénégal. Hmm. ci misaal bu ñuy wax ay incertitude ak politique gendarmerie ñan ñoo tax ñu teg leen fi bantee garab yi moo tax. bantee garab yi. nit ñee tax comme nit ñee tax ñu teg leen fi nag. Hmm. bu ñu demee ba geneen nit di ko utiliser ngir daanu nit ñi nit ñi danañ jéem. am na solo maa ngi si virage bu mujj bi Mame Mbaye Niang day nee na Ousmane Sonko bu Adji Sarr bi boo waxee ba rëcc. Hmm. jaay doole ba kilifa yi ñaan ba nga kii ba kilifa yi nañ bàyyi mu sedd ba président nangoo bàyyi mu sedd. foofu moom problème mais fii moom man ak yow yaa ma tooñ ma pelante la foofu moom loi bi moom day àtte far force. waaw ah, foofu la nga sax ñu euh, wax ji dafa boo ko déggee da nga xam da nga yëf yi wax mën naa far sedd. Hmm. waaw li mu ne maanaam hmm. si ñaan ba mu sedd. Hmm. yaa ngi aji saar bu jeexee kon loolu mën naa am mu jeex yàlla na yàlla na gémmiñam barkeel. li ne ko nag man ak yow. Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang du combat. du combat déedéet. ah li tax du combat mooy mu def conférence de presse la de a ñëw mm. la doon la ko doon fooyee démb la ñuy la ko moom fàttiwu ko yow fàttiwu ko man fàttiwu ma ko mm. Ousmane Sonko ko mm. ndax waxtu wala ngeen wax ko ci seen télévision seen plateau yi cest à mooy Ousmane Sonko actualité du jour la bëgg duggaale ci duggaale na ca ñun la doon fooyee fooyee nañu Mhm. mais mais Mame Mbaye li mu wax ni pare na pour saisir ko këram ak yëpp bu fekkee am nga loo fa bëgg a jënd ak yooyu. waaw ah, xam nga loolu moom ba tey man man ma fa bëggee jënd dara. Mhm. waaw man de xam naa ne la ma koy laaj mooy 9 milliards. 9 mhm. milliards yi mu koy laaj. waaw su saisiroon Sonko ba mu jeex du tax mu jot ci. léegi daje waaw parce que Sonko amul 9 mu deseel ko ah léegi moom ci misaal. 9 milliards yi muy laaj. ah baadu baadu mbir yi du ñu war di ko laaj. da ko ko laaj. Hmm. man de maam bay ñang man hmm. su ma amoon ci moom sañ-sañ hmm. te sañ koo wax sañ koo wax defal nangam ak nangam man mbirum Sonko xam nga du ma cay def ak nit xam ne ah ci li ci li ma jàngatee ci ni ni ma daan xalaati mbir yi mooy loo xam ne dara ko téefine loolu yàlla waaw te yàlla mi ko def nii dana da koy téye avant am li bëgg wala day bàyyi mu am li bëgg wala doon ko téye xam nga Macky Sall yàllaa ko yëkkati woon yaa ngi dégg fi ne dana ko yàlla mooy yëkkati mbir di ko téye léegi mbir yi euh, dañ koo dégg démb ndax da dégg nit ñi naan ay Ousmane même buñ ko téye woon it parti bee ngi fi ay biram feneen ne ay A mooy seen candidat xamal leen daal ñu doon xalaat ay buñ ko téye woon it kii mën naa dem yooyu patriote yi hmm. yi nga xam ne ñooy wax wax jooji yi hmm. waxuñu waxi nit hmm. ku naan ay plan B plan C loolu divertir non dañoo bañ dañoo bañ parti bi tas de xam nga Ousmane Sonko tey ji bu ñu ko téye woon maara day taal yi parti bi xamuñu fu ñu yéen xanaa xamuloo ne joxañ leen Sonko même ngi fi déedéet xanaa ne loolu ñuy wax noonu hmm. maanaam waa ma ci benn hmm. hmm. ba ñu defee 66 pour cent gagné état ba yaa ngi dégg ba Mohamed Morsi jiite ko bi ñu bi américains yi ak français yi daal di mobiliser wu ngir jëlee ko fa ànd ak Abdel Fattah al seen général bi bañ ko fa jëlee bañ fa xam ba jëlee ko fa moom moom moom chef de parti bi. Hmm. bàyyiwuñ ci parti ba dañoo dix-huit jours maanaam jëmmi axwaanul muslimin dugal leen ci liste terroriste lañ lañ rus la ñu yóbbu Pastef gii bu ñu téye Ousmane Sonko barke alxuraan parti bi dañ koy dissoudre dootu valable dootu mën a demat sax ay élection ah, moo tax jëm yi jëm yi barrage mooy Ousmane Sonko ah, loolu la Sonko xam loolu la de barrage mooy Ousmane Sonko wax nga dëgg wax nga dëgg parce ko yàlla uh-huh. hmm. hmm. hmm. dekkal Sénégal wala kon bu ko Cheikh Anta Diop incarné ko nit ñi dégg nañ ko nangul nañ ko te la muy laaj fas yéene nañ ko caa def ba mu jax tàkk bis bu fa jógee hmm. bu ñu jàppee ne Birame Souleye Diop dan la gii day état su paree ci Ousmane Sonko hmm. jëmmi parti parce que parti bi même bu Ousmane Sonko hmm. problème Ousmane Sonko problème dem mu nar koo gagné mooy seen problème te parti bu nar a mati élection ñu ne léegi kon parti bi comme moo nar a dem te moo nar a gagné nañ di parti bi ci suñu loi mu jeex fu mu déposé di ay kayitam ngir bokk ci élection dootu am na solo sunu heure jeex na tàkk tey ji bu ma a tànn woon ñeenti candidat hmm. eh, ñoo may ñeenti candidat yoo xam ne am nga si yaakaar si ñoom ni mën nañoo yor réew mi. ñu tànn moom candidat benn laa jàpp ne mën naa yor réew mi muy Ousmane Sonko. kon kay yow politicien la eh, nga fi nii nit ki nit ki xam nga politique daa bokkut ak yaa ngi nii tey jii bu ñeent yooyu noonu soo ma ko tànn la woon boo demaa tànnal ma ñett ma génn ci kenn ku ne. Hmm. boo demaa tànnal ma ñaar. ma génn ci ma génn ci ñaar tànnama ñaar ba hmm. saa sallam minhum man minhum man xasas na alayka minhum man lam naqsus am na ñu ma lay nett na ñu wut nett seen biir daal di ba mu neex ko mu dindi mu dindi mu dindi vingt et yi indi quatre ba mu neex ko mu dindi quatre yi indi kenn xanaa daa génn ci ñoo jiitoon hmm. génn ci ñoom man loolu rek la sant nañ la bu baax gërëm la sëriñ Muudu Astu Mbàkke Eh, dëkk Touba xam naa ne si kanam tuuti moom léegi tey gars yi tàmbali laa jabu lycée <laughs> tàmbale defanteeg yow tàmbali laa indil problème mais eh, réew mi léegi ko tax a jóg réew mi léegi moo ko moo ko ñor naka lay def ba rang yi jub ci loolu yi la nekk.